di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ndax kilifa gu woyof la gu baax gu neex a jaxasoon bu yombal liggéey bi nga xam ne lépp lu ñu bëgg wala lu ñuy def rek daanaka taxaw bu baax a baax a baax ñoo ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam di ñaanal tamit ak di sant Serigne nga xam ne moom la defalee suñu diggante ak moom te suñu borom dogal tamit lii bu melee nii lépp mooma ndax saa bu wootee wala ñu def dara loo xam ne pour lu jëm ci bis bi lépp lu mu ca mën def na ko foo xam demee dem nañ ba tàkk ca kàddu war faa jub wala mu war yëkkati téléphone def na ko ca lépp loo xam ne dañ koy tënk fii rek dañ koy wax ne ko nii lañ bëgg a def ca duñ ko soppi dara ku la yàlla mayee kilifa gu mel noonu nag la ca def lépp mooy nga sant ko rek di sant tamit mbooleem ñi nga xam ne nii ay sët lañ ci maam maharam ak sët lañ ci sëriñ Mamour Anta Sali ak sët lañ ci sëriñ Bousso Bey Bousso ak sëriñ Saa ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp ak mbooleem seex yi ñëpp sët yëpp teew nañ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis nañ taxawaay bu baax a baax a baax ñi sant tamit mbooleem ñi nga xam ne ñooy sëti sëriñ Mbàkke Kan yi ndax ñoom ñoo surtout sëñ Massamba Kanni yi benn lañ wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na bu baax a baax di beral ak cant nag surtout sëriñ Seexu Bousso yi wax dëgg yàlla ñoom it jàpp nañ ci bis bi bu baax a baax ndax ba bis bi egsee daanaka lépp loo xam ne lu jëm na ci ak yégle wala lu jëm ci siiwal bis bi tamit am nañ ko ñoom ca xam ne sëriñ Bousso bi la te moo meññi ñoom ñëpp kon nag ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ñi ngi di sant mboolem ñi nga xam ne nii ñoo àndoon ci liggéey bi ci wàllu saqaaf ak mboolem organisation bi nga ne ñooy seeti sëriñ Massamba Kanni yi ndax bi maagal bi jub see lépp dañoo bàyyi seen i soxla ak i jot lépp luñ man ngir jagal bis bi def nañ ko def nañ ay waxtaan def nañ ay plateau spécial ànd koog mbooleem ñi nga xam ne ñoo seet si Massamba Kanni yëpp bi màggal bi jubsee def nañ lu am solo mooy benn table ronde boo xam ne dañ koo def ngir lëkkaliwaan njabootu Serigne Massamba Kanni gi yóbbu ko ci kër Serigne Cheikh Diop mi nga xam ne mooy moom kenn la ci njabootu ma Massamba Kanni ci ay taalibeem ak waajuram mi nga xam ne mooy Serigne Ousmane Diop ngir bëgg sant tamit ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci liggéey bi muy journaliste yi lu mel ne Jant bi FM ñu ngi koy jàllale direct Walfadjri yi ñu ngi jàllale direct tamit waxtaan wi ñi ngi sant tamit Rafah TV ak yi nga xam ne mooy Tawfekh Production ak Dakar instant ñoom ñëpp teew nañ ñi ngi sant tamit RFM sëñ Moustapha Dieng mu ngi moo leen fi teewal ñu leen sant bu baax a baax a baax li ci nag mooy sëñ Gora Ndiaye naanaan tamit ñoo ngi ko sant bu baax baax moo fi teewal waa Jant bi FM su ko defee dañuy sa sant sant sant sant goo xamante ni si euh, dañ koy jëmale waar rek ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo toog baax bi li ci des mooy sët yi tël ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañoo yàlla dafa leen a bind boole leen ndax sëti sëñ Massamba Kane yi noonu la leen yàlla bindee daanaka boo gisee bu ñuy liggéey ak bu ñuy ànd daanaka doo ci xàmmee kan moo ci mag ak ku ci magul lépp rek ngir bëgg liggéey bi jàpp kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax su ko defee nag ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi ngi xam ne mooy jàppale mu jàppale ñu ba lépp li nga xam ne moo nekk suñu kanam suñu borom defal leen ci ay tawfeex ndax suñ sañoon tamit dëkk bi ñu nekk muy darul xaddim ab institut islamique bu mag am fi boo xam ne dëkk sët si Masamba Kan yi ñoo koy yor ñoo koy taxawal te loolu tamit ay xalaat ngi ci ay ñu ngi ciy dox jëm bi maagal jub see tamit bind nañ benn benn majalla bu mag boo xamante ni si uh, am na solo loolu njaboot gi ñoo ko bind mbooleem koo xam ne sëtu nañ si Masamba Kan rek def nga ci saw laaj ci ñi jàng français ak ñi jàng arab ñëpp bind ko yàlla dogal na majalla boobu génn kon nag loolu tamit ñu ngi ciy soññ bu baax baax li ci des bu ko defee tamit di sant tamit ñi nga xam ne ñoom la yàlla doo boo doo booleen moom ñoom maam ñoom la yàlla euh, booleeg Sëñ Masamba Kanni ci ay sët yoo xam te ne ci pas-pas la ñu àndoon Sëñ Masamba Kanni muy mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ndax ba màggal gi bu mel ñoom ndax dañoo sos fédération bu mag a mag muy kër Sëñ Masamba Kanni gépp képp fu ab taalibe ba nekk rek sos nañ benn fédération boo xam ne Sëñ Masamba Kanni dañ ko tuddee di ci dox di ci wax lii ngeen gis mu mel nii lépp ñoom ñoo ko def ñoo àndoon na ñun bis bi saa bu ñu wootee réunion dañuy ñëw loola ñu leen ci sant bu baax a baax ndax tamit gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax ñi ngi ñaan yàlla nag su suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy jàppale ab jaam mu jàppale sët yi ci li nga xam ne mooy dundal xam-xam ndax buñ sañoon tamit képp koo xam ne dañ lay askanooloo di lay askanooloo ci Mbusoobe rawatina sëti sëñ Masamba Kanni yi fuñ toll di nàmpo xam-xam di nàmpo li nga xam ne mooy tamit ab pas-pas ndax boo ko seetee xam-xam ak kilifteef muy ab yar ak i teggin loolu mooy li nga xamante te ne si moom moom la nit mënta ñàkk loola nag ñi ciy soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp ndax ku yàlla bind ku ne bind na la loo xamante ni si boo ci doxee jëm ci rek mën nga ko am ndax kër gi ni muy rëy rëy ñett yi doxal ab famille am nañ ko muy xam-xam doole akum xel loolu la suñu borom dogal ñëpp am nañ ko kon nag loolu lool loolu mbir la muy nelaw rek bu suñu borom dogalee ñu ñu yeewu rek lépp danañ ca mën a dox jëm kon su ko defee dafa xaw a guddi moo tax ñu lu bëree bëri ñu dabu ñoo ngi sant mbooloo mi di leen gërëm di ñaanal yàlla suñu boroom euh, ñi fi nekk ñëpp suñu borom dafa leen tawféex ku fi ñëw aajo joo fi am rek ñaanal ko suñ boroom fajal képp ku fi daanoon njàqare wala tawat yàlla na ko suñu borom fajal di jégalu ci kàddu yi nii mu demee ndax waxtu wee xaw a xat euh, sëriñ Abdourahmane Niang ibnu sëriñ Baara Niang moom itam ànd ak sëriñ Xaadim ak daayira bi ñëpp ñëw teewal sëriñ Baara sëriñ Baara Niang sëriñ Moustapha Mbacke ibnu Abdou Wahab sëriñ Gédé Bousso ibnu sëriñ Njaañe Bousso moom itam ñëw na ñëw nañ fii waaye tam euh, sëriñ Mor Mbacke indi sëriñ Cheikh May sëriñ Jili Mbacke indi sëriñ Cheikh May moom itam soxna indi sëriñ Modou yónni sëriñ Cheikh Bousso indi bàyyi sëriñ Bousso Fati Silla ñëw na fi sëriñ Ibrahima Ndiaye bun bàyyi sëriñ Ndiaye Guédé sëriñ Ousmane Ndiaye moom bàyyi sëriñ Ndiaye Guédé ak euh, mbokk yi ñëpp sëriñ Abdourahmane nag wax naa ko léegi sëriñ Omar Bousso wala sëriñ Omar Fagnam ci njiital waa kër sëriñ Omar Fagnam ci njiital sëriñ Sidna Bousso dann moo ànd ak sëriñ Omar Bousso mi waa kër si Cheikh Astawalu Mbacke ci jiital Sëñ Fallu Mbacke Guédé waa kër Sëñ Abdou Wadoud Mbacke ci jiital Sëñ Fallu Seck ak waa kër Sëñ Baara ci jiital Sëñ Xaadim Ñang ñoom ñëpp ñëw na ci ak yoo xam ne que ni euh, jotaay bee tax na mënuñ leen a tudd waaye itam waa génération bi nga xam ne que ñoom itam ñoo ànd ñun ci bëccëg ba léegi waaye da ahfaadu sëñ Omar ci njiitu sëñ Jiidi Bousso moom si am bi ñëw na fi daayira ahfaadu waa kër Sëñ Baara Ñang si xaalis nag wax naa ko léegi ahfadu waa kër sëñ Abdou Farimata Lo ci ñiiti sëñ Hamidou Mbacke ñu ngi fi daayira ahfadu waa kër sëñ Ibrahima Farimata ci ñiiti sëñ Abdou Khadim Mbacke asul islam daayira waa kër sëñ Mbacke soxna ci ñiiti sëñ Mbacke si koy mu ngoog waa kër sëñ Abdou euh, Saman Mbacke moom sëñ Mour Fat Xëri ma nga ne toog ak sëñ Cheikh Bousso Poroxaan ñoom ñëpp ñëw na ci wax dëgg yàlla kon dañuy woo suñu Ousmane Diop mu wax ci turu euh, taalibe yi nga xam ne ki nii ñoo bootu ci kër Serigne Massamba Kanni Serigne Ousmane Diop moom moo ñëw euh, wax ci kat turu njaboot gi wala boog ñuy bootu ci waa kër Serigne yi Hadji Ndoumbé wax naa ko léegi Serigne Mame Balla Mbacké moom itam teew na fi waaye euh, Serigne Abou Mbacké moom soxna may Serigne Abdou Diop imam Serigne Salif Mbacké ñun ñëpp wax naa leen kon nag fiñ fallu sa mbokk yi wax dëgg yàlla ci askanu maaram ñoom ñëpp ñëw nañu wax dëgg yàlla. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi yi ñu ngi leen bu baax a baax di di leen balaax di leen balaax ñaan suñu borom boole ñu jéggal mbooleem suñuy rëcc ci barke suñu Tuubaa Xaadimu Rasuul ñuy tënk rek ci kàddu yi gàtt ndax waxtu yi moo xaw a guddi euh, kàddu yi itam dañ koy tënk rek ci jënd ko ci suñu mbokk taalibe yi rek muy ab soññee akub yëgle ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi ñoom la ñuy yëgal ne li nga xam ne mooy daayira fédération Serigne Massamba Kanni Bousso mi ngi fi di dox diirum ñaari at ñu di ci soññ nag mboolem ñi nga xam ne xañ na yëgoon nañ te fàtte wala ñi nga xam ne yëgaguñ woon itam ñu di leen yëgal ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi wa ah, li ko tàmbalee Njaambur Jolof Saalum ndakaaru fii ci Touba ak li ko wër booleem réew mi fu ci waaye man di nekk rek ñu ngi lay soññ ci daayira sëñ Massamba Kanni bi bëgg nga dox ci bu baax a baax a baax itam nag ndax daayira bi yemul ci biir euh, dëkk bi rek fépp fu ab taalibe man di nekk ci àdduna bi rek euh, ñu ngi la ci soññi ndax ab taalibe amul lu muy sëriñam tey ginnaaw taalibe bi dafa ñëw dékk ay loxoom sëriñ bi jëblu ci moom dafa war a fexe ba góorlu ba aw sasam bi nga xam ne sas na ko boppam itam mu bañ a booy ndax koo xam ne ñëw nga jébbal sa bopp sëriñ bi na la wóor ne sas nga sa bopp waaye sas nga sëriñ bi kon sas bi nga sas sa bopp muy jébbale sa bopp kon amatoo dara kon lépp sëriñ bekk moom kon na nga góorgóorlu baax ci li nga xam ne mooy liggéeyal sëriñ bi te itam euh, kenn ku ci nekk xam na ne itam euh, nit ci li nga xam ne moom la ñuy wax bàqu murit muy jëf jël kon ku jëfut doo jël kon kenn ku ci nekk na nga fexe ba jëf loo xamante ne bi euh, daan nga ko mën a jëriñoo ci li nga xam ne mooy yërmande borom bi subhanahu wa taala ak ndimbalal sëriñ bi bu ko li nga xam ne mooy daayira bi nag kenn ku ci nekk war na cee góorgóorlu bu baax a baax ñuy fàttali ne daayira bi itam góor gu ne ñaari junne la jigéen junne loolu mooy euh, sas wi kenn ku nekk war na cee góorlu mu bañ a booy bu ko defee itam ñu xam ne nag Euh, kenn ku ci nekk ne la biir ne kenn defalut kenn kenn ku ci nekk sa bopp ngay defal ndax amul kenn koo xam ne danga nga doon jëfi kenn ndey li muy jege-jege waaye kenn ku ci nekk sa bopp ngay jëfal waaye kon kenn ku ci nekk na xam ne nag lii liggéey sëriñ bi la te na nga xam ne noonu la mag ña defoon ba am ngërëmal ña nga xam ne ñooy mag ñi ñu àndaloon ñu ni nañ ko def ba am ngërëmal ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal ndax suñuy maam dañoo àndoon ak ki nga xam ne mooy Serigne Samba Kanni joxoon ko seen lépp seen ite jëpp ba amoon ngërëm li nga xam ne moom la am ci Serigne Samba Kanni suñuy bàyyi itam la ñu defoon ci ñi nga xam ne moo njabootu Serigne Samba ñun ñi nga xam ne ñoo jamonoonte ak sëti Serigne Massamba Kanni itam nañu teg foofa suñu tànk fas yéene topp seen ginnaaw euh, dawal leen ba nga xamante ne bi li nga xam ne moom la suñu bàyyee amoon ak suñu maam yi amoon euh, ñun itam ñu am ko ci ñi nga xam ne ñooy sëti Serigne Massamba Kanni bu yi nag ndax itam ab taalibe wërta taxaw di wax naan su ma fekkoon jamonoy Serigne diw Euh, loolu wax ji yàqu la ndax soo fekkee wut jamonoy sëriñ diw ndax sëñ diw moom ndax sëriñ diw moom mënut a jamonoonteel ñëpp waaye kenn ku nekk am nga koo jamonoonteel ka nga jamonoonteel moom nga def te la nga xam ne moom nga war a kon ñii ñu jamonoonteel nañ ngi soññ ñëpp di leen sant di gërëm kon euh, ngi euh, ñuy xamal ne waxtu yi dafa dafa guddi kon dañuy tënk noonu rek ndax waxtu yi moo gën